Eh, Badou Ndaw maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi Badou Ndaw nga nekk membre liste naatal kaw gi Sénégal naat hmm. ci élection législative yu 17 novembre 2024 est-ce que campagne bi démarré ngeen ko seen côté comment ça se passe exactement. waaw jërëjëf Ndeye Ndeye Comba man la Ndaw Badou le médiateur président du mouvement des porteurs de projet Yeewu Leen effectivement nekk. voilà ci listu union ànd naatal kaw gi maintenant pour Sénégal nat léegi effectivement gars yi day démarrer seen ay campagne comme à leur habitude waaw oto yu rafet yu ngand yi oto bu gars yi bu ñu la seen convoi yi moom <laughs> ci nga xamee ni que saa mhm. man de démb maa ngi toog di xool benn convoi mais bi ma ko xoolee ba pare mhm. xam naa ni li fa nekk ci ay oto xanaa war na toll un milliard mhm. doo fa gis oto buy jar moins de cinquante millions wala wala wala wala yooyu daal xam naa ni gars yi moom am nañ alal trop te man li ma jaaxal ñoom ay politiciens kese lañu waa kenn xamulu leen benn liggéey kenn xamul leen pour ñu ci bari benn xëy wala ku ci am xëy sax wala ku ci am kii waal xam naa ni ñoom ni ñuy dundee doy na waar hmm. donc effectivement campagne bi commencé waat na ñu ngi wër ak seen kii seen ay oto yu rafet yu ngand yu kii ñoo xam ni ñoo xam ni kii demati ci nit ñi di wax mais dafa mel ni nit ñi ñoom loolu la ñu bëgg ah waaw gars yi ñëw indi oto yu rafet yi sol sol yu rafet yi di leen wax ay waxu milliards ñu yuuxu ñoom bu ñu paree yéeg Jakarta wala ñu dugg taxi wala ñu dugg tata affaire yooyu noonu dem ñibbi yooyu xam naa ni sénégalais moom. Hmm. ñu doy waar lañu. xanaa yéen seen côté liste bi mooy demeewul noonu wala baykat yi. mais ñun baykat yi mais euh, yow gis nga xam nga sénégalais yi dañuy jumt lu bari. Hmm. xam nga man baykat laa. Mhm. damay bay di di élever nappkat yi aussi ñu ngi fi man boo ñëwee sama biir kër maa ngi fa tabax suma ci àll bi maa fa tabax suma kër gu rafet def fa suma oto bu rafet climatiser sama kër néeg bu ñu war a climatiser di def li sénégalais yi def di ko def dàq leen ko fuuf te yëpp suma alal yëpp ci mbay mi laa ko jële mhm. waaw man nag ñeneen ñekk ñeneen ñi waaw ah c'est que yi xalaat ne kuy bay wala kuy kii dafa ñàkk te yow loolu moom mooy ñàkk xam-xam bu bu bu bu bu rëy rëy rëy. non pour campagne bi laa wax est-ce que am ah, mooy mi ngi fi parce que yaa ngi wax ni politiciens yi déjà buñ la rombé ak seeni oto. nga ne ah. moom doy na waar mais dama ne yéen seen campagne bi est-ce que moyens yi mi ngi fi pour ngeen mën a toll ak yi waaw wala déet loolu la. non ñun ñun essayé ñu woo toll ak yi ndax bokkuñu fu ñuy jëlee. te ñun yoruñu xaalis bu ñuy foyee parce que ñun yoruñu kees yu ñuy tibb dem di jëndi ak ñun suñu xaalis la ñu yore bu ñu liggéey mu lew domm waaw ñu yore suñu ay oto di ko ci def yore suñu ay kii di ko ci def di ko kii li ñu def rek lu ñu mën la ñuy def danañ ko def ci njub danañ ko ci doy doylu danañ ko def ci lépp waaye nag lu ñu dem fële xam nga di fa jël mbiru jàmb ñun li ñu yor ñoo ko moom jëluñu leneen waaw mais ñoom fi ñu jëlee seen oto yi doon ko lijjanti ba pare balaa ngeen di yóbbu ak du ñoom ñoo ne jub jubal juba di xaw ma. waaw waaw ñoom bu ñu yoree seen oto yi doo leen leen laaj fu ñu jëlee oto ah, ñoom nee nañ dañoo cotiser. xanaa ñoom nee nañ dañoo cotiser loolu xanaa déggu li mu li mu li mu wax ak cotisation yi si militant loolu dafa hmm. wa loolu dafa lu yomb lu mën a lu ñu lu ñu yombal lijjanti kii la euh, vérifier la ak a yombal vérifier dañoo cotiser loolu dafa yomb a vérifier man bu ma taxawoon nii rek ñoom seen convoi romb ma rek dinaa la mën a wax ñaata la ñu ko ndax coti ñaata la convoi bi di jar ak cotiser bi ndax di na fa wala pas na na nag ku nekk essayé ndax sa bopp rek te bañ a essayé ndax nit ñi waaw. yéen bu ngeen oh. demee assemblée euh, Badou. Hmm? lan ngeen fay apporter lu original ban touche ngeen fay apporter en tant que député. le développement xam nga ñun ñoo yor tey Sénégal. Hmm. ñun ñooy dund ñun ñooy bay ñooy bay mboq mi ñooy bay ceeb bi. ñooy bay dugub ji ñooy bay ñebbe bi ñooy bay gerte gi ah, ñooy bay légumes yi waaw buñ jógee ci mbay mi ñun ñooy sàmm ñooy joxe yàpp joxe meew joxe soow buñ fa jógee ñooy joxe jën <laughs> waaw ñun kay ñoo ñooy Sénégal ñun ñoo leen di dundal donc ñun kay développement ku koy wax wax ko ak ñun ah ñun bu ñu demee assemblée nationale li ñuy changé xam nañ ko danañ fa indi école bu bees danañ indi école bu bees école rurale xam nga seen école yi ñu dem ñoom dem ak ñoom fële ñoo xam fu ñu koy yóbbu ñu xam nañ ban façon école moo ñu arrangé dinañ jël Sénégal def fi ay ay ay ay ay ay xel koom yu dul jeex du xaaj danañ fi def ay université agricole danañ fi def ay lycée ak ay lycée agricole ah danañ dindi chômage Sénégal nañu jox assemblée ngeen gis ñun dañ fa nekk di wax de waaw parce que dëkk bu toll ni Sénégal am ñetti fleuve yu ko traversé am quatre millions d'agriculteurs ah nan ngay mën a jóge ndakaaru ba Kédougou doo gis tool doo gis doo gis dara lu ay waxkat rek ñëw di wax waxu waxu waxu kii bi ku ci ñëw naan la ku ci bëgg a wax sa ay waxu caaxaan rek ñëw naan la le monde rural est fatigué ah ñu la ba fuñ fuñ fuñ ku leen ne le monde rural est fatigué ñëw la ñu régler affaire u ndakaaru gi seen luyaas yu metti seen kër yu xat yooyu connexion yu dee yu kii yooyu ñu daan la kan moom fa sa gis monde rural ñëw taxaw ne dañoo sonn loolu lañ bëgg ñu génne nañ ci loolu moo tax sax ñu bëgg a dem assemblée nationale parce que seen fennu politiciens yooyu ñu génne ñu ci waaw parce que nit ki mënu lay dundal ba pare même di jox sax ndox ndox sax bu ko waa Dakar lac de Guiers lañ koy lac de ca àll ba la ñu lay jox ndox sax booy booy naan nga bëgguñu ñu yëpp te yow buñ ko seetee yow bayoo kii yoo dara defoo ko wax kese nit ñi du yuuxu nga yëy seen moon yi ne fes di leen rek wax ñu kenn fontoo Mhm. Badou euh, campagne bi demare na gis nga fitna bi déjà jóg na gis nga fitna déjà bi am si diggante euh, camp wu Barthélémy Dias ak camp wu Abbas Fall bu Pastef naka nga gisee fitna bi aussi ñu dem euh, ci siège u Taxawu Sénégal bi nekk Sacré-Cœur déjà daal di koy lakk naka nga gisee fitna bi nga xam ne demaguñ fenn te jóg na. gis nga parti politique yi nekk Sénégal boo ko xoolee nga ñoom ak gang yi gang gang yi ngay gis ci film yi ñuy fetalante ci ay pour bopp koñ bi ñu ñoo ko war a moom bale bopp koñ bi guerre de territoire c'est la même chose xam nga lu koy indi depuis des années dafa am ay Sénégal nit ñoo xam ne ñoom politique la ñuy dundee maanaam politique ñu ngi ci maire yi ñu ngi ci assemblée nationale ñu ngi ci ñu ngi ci appareil yi quoi parce que foofu la xaalis bi nekk ñi a ko gis gis ne Sénégal xaalis bi mu ngi ci politiciens yi politiciens ngay bokkal koñ tey suba ñu ñu ne parti yëg na ci nguur bi teguñ ci six mois mu muy dawal kat kat toj seen kër yëkkati ko nekk keneen te yow xamaloo ko benn liggéey benn liggéey xamaloo ko ko soit mu ne la conseiller laa ca mairie ba conseiller mairie ba kenn du la fay waaw mu ne soit ñu ne conseiller te mairie ba muy xëy foofu wala ñu ne la ci moom daal politicien rek ngay gis Sénégal nit xëy suba am lu ne loolu nag nit ki ko bokk ko bëggee yàqal mais day génne jaas yi <laughs> day génne jaas yi. wala lu ko raw. ah wala lu ko raw moo tax ñuy ger nii naan woy la lion de xawma kan ndey kumba mooro la tigresse la kii ay tigre ki lion ki tigresse ñuy wuti ci politique ah yooyu nag violence yooyu nag dafa congénital à l'exercice de la politique au Sénégal ba nit ñi aussi tàmm ko seen ay partisans tàmm ko waaw ñoom ay kii bi ak ay guerrier sama waa ji sama lële alors que développement doo ko dégg ñu wax ko ay ay waxu boole ngay dégg ay waxu joxañaate ay waxu lii ay waxu lële ñun rek ñoo fiy wax développement ci suba ba ci ngoon waaw voilà beneen laaj moom mooy kàddu yi nga xam ne njiitu réew mi yëkkati na ko avant ñuy dugg ci campagne bi di woote dal mais aussi di euh, leeral ci coowal Samba Ndiaye mi nga xam ne daf ko nommé euh, militant Pastef fii ne nañu ko limogé wala mu démissionné président nag euh, fas yéenewul dellu gannaaw ci décret bi noo ko gisee. waaw président nag moom xam naa ni ku baax la man j'ai beaucoup respect pour lui. humainement mais j'ai beaucoup de respect aussi sax pour l'institution qu'il représente waaw waaye nag euh, président li mu waroon def moom mooy affaire bi mu dem woo waa Pastef je crois que ba léegi mooy président d'honneur xaw ma ñu demee noonu na dem wax ko ak waa Pastef yi woo leen foofu ne leen gars yi li ngeen di lii ak yooyu parce que ñun loolu vraiment ñun avancé wuñu ci dara quoi nommé nañu président nommé na après premier ministre wax na ci waa militant yi na ñu ay xawma lan affaire yooyu ça c'est une affaire interne à Pastef ah ñun loolu ça n'intéresse pas le Sénégal mais ce qui est constant moom mooy que c'est le président de la République qui nom aux emplois civils et militaire c'est le président de la République qui nomme son premier ministre xam nga loolu moom moo constant te loolu moom moo fi am te président de la République bu defaree décret daf koy jox premier ministre premier ministre da koy contresigner wàcce ko ci ministre am ministre moom moo koy ci bañ na waa ji tel jour ngay jël fonction tel ngay kii nii dañ la yónnee lii ak la on n'est pas dans un pays boo xam ni l'administration c'est une administration de wuyaa wuyaa non non non non le Sénégal est un grand pays qui a une grande administration ku ko xam baax na ku ko xamul baax na waaw te loolu moo fi ne donc président de la République bu bu bu toogee ba moom ñu mu am ñuy contester sa signature na dem lijjanti ko ak ñooñu parce que ñi ko contesté c'est dans son parti. Mm-hmm. na dem si parti mu réglé ji ko foofu. mais loolu ñun sénégalais yi nga xam ni ñoom moom dëkk bi mu xam ni notre pays le Sénégal vaut plus que ça ñun débat boobu bokkuñu ci. waaw naka nga gisee FMI mi gelé programme am bu un virgule huit milliards d'euros bi mu waroon a jox Sénégal euh, gannaaw bi ñu gisee ni euh, Sénégal dafa régressé euh, bu baax a baax note du Sénégal dafa dellu gannaaw gannaaw kàddu yi nga xam ni PM yëkkati woon na ko ci la dette publique naka nga gisee encore mbir moomu mbir mi c'est simple comme bonjour le PM mu ngi xool. gis na ni sénégalais yi ñu ngi wax te li ñuy wax juboowuñu xam nga kii ñu ngay weer kee kële ma ngay weer fële wax naa leen ko fi nee naa fi temps yële passé ci benn kii ne leen yéen ñiy wax Macky Sall li mu fi bàyyi réew mi mu fi bàyyi dafa nërmeelu te Macky Sall mu ngi dund mu ngi fi xam nga Macky Sall moom nee na bi mu fi bàyyi réew mi tout était au vert waaw te Macky Sall ngi dund demul fenn mu ngi fi sénégalais la. ñoom ñii di ko wax ay sénégalais la ñoom ñi nekk ci nguur gi nii te ñoom ak Macky Sall yàggul dara dañoo waxtaan ba joxante nguur gi kon laajul lu ñuy wax ci mu ñu koy wax ci mbedd mi en en en responsable pour que bañ a yàq deru Sénégal pour bañ a yàqal dara Sénégal ah nañ wootante ñoom ñu toog ñu wax ci Macky wax leen nan la def ba ba ba ba ba ba les qui sont au ñoom aussi seen rouge bi ñuy wax ñu prouver ko ñi. parce que du affaire toog rek les qui son au rouge de koy prouver mais loolu Sénégal moo waroon a mag loolu yëpp nit ñu toog ñu waxtaane ko mais defuñu ko ñu génn ci mbedd mi di wax FMI nag dafa am un rôle rôle bi am moom moom moom ñoom dañoo mës a xalaat ne ñoom dafa am ay économie yoo xam ni il faut ñu koy ñoom ñu toog di leen wax yéen nii ngeen di defee loolu moo fi indi woon programme d'ajustement structurel bi Abdou Diouf tegoon Sénégalais yi nga xam ne ci la chemin de fer yàqoo ci la ay Sonacos yi yàqoo ci la administration presque naroon na yàqu ci la Sénégal yàqoo ba tey ji effet mu eh, effet yi émi eh, effet mu effoon am mu ngi fi démanteler la famille parce que moom moo indi la journée continue bi tax bàyyi nekkatuñ ci kër yi ba xale yi mel ni ñu mel alors FMI boobu moo xool xam nga gis ni coow li lii la nara indi et que mu ne xaaral léegi nag moo tax mu ngi taxaw nu mu nu mu gën a méttee ci Sénégal maanaam lépp loo xam ni da doon jóge fenn di ñëw Sénégal rek FMI dina ko kartee ko pour que ëllëg mu mën a taxaw ne gouvernement wu Sénégal bi boo leen bëggee ma jàppale leen def leen nii ak nii ak nii ak na le te defal nii ak nii ak bële xam nga mooy lan moom mooy lépp loo xam ne gouvernement wu seen état du Sénégal mu ngi ko mu ngi doon jàppal Sénégalais yi pour yombal dundam pour wàññi courant bi pour wàññi ndox mi pour wàññi transport bi pour sax ak sénégalais bi dund normal FMI dina ko xool ne lii dindi leen ko kenn waru leen koo def dindi leen ko na yëfi ni mu war a jaar kon sénégalais yi donc yaa yaa trente cinq ans li seen bàyyi yi doon dund ba sonn ba nga xam ni góor góor lu ñëw ba nga xam ni lu nekkoon seen quotidien booy boo xale yi ne bu ñu nangoo loolu loolu loolu moom moo fiy am. Hmm. waaw moom moo fi am. jërëjëf Badou ndaw maa ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj Badou. merci voilà may fàttali ni euh, Badou Ndao membre nga ci euh, liste naatal kaw gi Sénégal naat ci élection <laughs> législative yu 17 novembre 2024 ñu ngi lay remercier Badou Ndao le médiateur bu baax a baax.